dafa tollook yàlla ñi mu mësa yónni yépp laata ñuy dem xare ci ay jataay lañu tàmbalee waaw ci biir jataay yi ñu seet ndax seen waxtaan dañ koy teg ci li ñoo tudde muqtadal xaal wala dañ koy teg ci li ñoo tudde xaalul mutakallim muqtadal xaal mooy milier bi ñu nekk ak contexte bi lan la laaj ndax dañuy delloo sunu bopp ci milieu bi ak li xew walla kiy wax moom mooy seet xaalam li ko conditionné lan la mais kiy wax kan la foog ñu xam kiy wax kan la moo tax ñoom boroom xaqiqa yi boo gisee يحجرنا موتخ سين حال المتكلم لني بغ مكونديشوني مقتضى الحال معنى يوم دنيو جمني jànq la kàddu jànq la xel mooy baayam xalaat mooy yaayam sunu boroom sédde ko turam bi ñu tudde al mutakallim bàyyee la ko ko pour mooy maye sëy jànq nag kenn du ko may mbooloo kenn rek lañ koy may waaw lay tax seen wax alquran daf koy conditionné ndax alquran itam li ci di li ci nekk wala téré bi bok li ci di quran ak li ci di furqan ñu di ko bàyyi xel waye itam ci biir kamil bi ba tey waad baa ngi ci waid baa ngi ci li yàlla di digge ak li yàlla di tëkkoo boo ci génne kaamil bi dootul nekk kaamil waaye itam balañ koy acc ci ay waxd ak waxiit moom mi ñu dénk te mu war a natt ci xaalul mutakallim ñi muy toogal dafa am ñaar yu muy bëgg ñu ràññetle ko moo di conscience ak responsabilité waaw conscience kenn du ko xam dañ koy am responsabilité ken du ko am dañ koy xam c'est très important waaw conscience ken du ko xam dañ koy am mais responsabilité aussi ken du ko am dañ koy xam donc boobu mooy bu jëkk bi moo tax échantillon yi yàlla joxe ci alquran yépp mu bare parce que gis nga nit ba la koy jox benn orientation war nañu yar impression ba noppi parce que impression dafa garaaw surtout ci ku ñu parewul ci yow dañu ma nettali ay yennati njaboot yu seen xel sorewul événement yi fi am ñu di ko teg ci télévision yi am ci njaboot yu gàtt xel ba am seeni morom yu leen yóbbaale ci événement ba ndax impression mu tax lu lu jara jara bàyyi xel la yàlla ko njëkk a bàyyiloo xel Muusa ci banu Israel ij'al lana aliha يرفع اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ñi Moussa doon àndal ci bënu Israël te di leen woo ci yàlla mi leen mënal lépp ñu romb ñeneen ñu am seen yeneen yàlla waaye façon bañ koy defee tax ñi mu àndal fàtte nañu yàlla bi ñu am bëni Moussa ndax duñu defal comme sen boss gis nga motax ba mu faddo di jeli jaal waax yi rek la xew-xew parce que aqliya ba jogu fa waaw naka la ñu indi ijlan jasadan rek ñu daal yew waaw motax c'est très important nit ki ba la koy jox dara ñu yar impression ba noppi waaw te mooy du lu mën a xulli bëtam waaw kooku mooy bi yàlla joxe mu di benn échantillon